Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Books in Wolof to learn English with Mr Ba dalee na jàmm beneen yoon ci seen YouTube bii di English Books ngir jàng anglais jaare ko ci wolof ànd ci ak Mr Ba ba léegi dañuy continuer ak yéen ci leçon yi te nag ñu ngi am ñaareelu leçon bi aju ci chapter bi nga xam ne moo ci mujj muy sixteen liñ ci am nag mooy comme title bi she killed the snake she killed the snake she mooy moom jigéen gu fi nekkul comme kumba wala faatu killed mooy past to kill maanaam ray boo ne killed mooy rayoon na wala ray na the snake mooy jaan ji kon loolu mooy title bi moom rayoon na jaan ji ci action yi mu jaar nag ba rey jaan ji fi mu bàyyee ko këram ba fi mu rayee jaan ji jëlee ko fa yóbbuwaat ko këram loolu la ñuy jàngat nan la ko anglais di waxee bàyyeekoo na fii jaar na ci kaw lii romb na lii jubal na fii àgg na fii rayee na ko fii dëppaat na jaaraat na fii loolu nan lañ koy waxee loolu moo tax a jóg leçon bi ak ci côté boobu nga xam ne baat bi ñu jëfandikoo ci killed muy regular nga xam ne past bi day jël id muy ed comme ni nga ko gisee nii ok ñu dem ci leçon bi first one bi muy listening mooy déglu A. Listen and repeat look and learn déglu te bamtu waaye xool tim te jàng comme mu ngi mel ni kuy nettali benn action boo xam ne dafa weesu woon démb wala jigéen gi démb la rayoon jaan ji yesterday mooy démb buñ ko fàttee ñetti baat yoo xamante ni dafa jar xam ba léegi yesterday ci la bokk muy démb today ci la bokk muy tey tomorrow nikk noonu muy suba ñett yooyu moo séq jamono yi ci lu teew ak li weesu ak li ñu jublu si boo déggee bépp benn action wala mbir boo déggee rek ñu koy wax jiital si yesterday jàppal ne loolu past la maanaam li ñuy jëfandikoo ci verbe yooyu yépp nga xool bu baax nu ñu jeexee bu dee ni regular la nga xool ni ñu soppeekoo bu dee irregular verb la ok comme yesterday démb de ma nettali la benn affaire Mrs Diarra hmm, Miss Diarra moom nit la mooy Mrs Diarra lan la def opened opened her door yesterday Mrs Diarra opened her door démb de Mrs Diarra daa ubbi woon buntu buntam bi buñ na her door nag mooy bunt bi nga xam ne moom moo ko moom waaye li ñu si jublu mooy buntu néegam lan moo tax loolu jaral leeral mooy her day ñëw si ñaari anam yoo xamante nii boo bàyyiwul xel rek doo xam bu nekk lan lañ si jublu bu dee ne comme door moo ci topp muy tur muy naawoon xamal ne loolu moomeelu jigéen la mooy jigéen la ko moom maanaam hë baag saagam gi hë door buntam bi hë koor otom bi hë bukk téereem bi wala livrom bi ok waaye bu fekkente ne rek hë verbe da ko jiitu xamal ne loolu du moomeelu jigéen waaye jëf ji moo daanu ci jigéen comme nga ne I love faatu man bëgg naa faatu au lieu de ngay indi faatu ci beneen anam mën nga wax I love her mooy man bëgg naa ko kon her googu bokkul ak her door wala her car I see Fatou every day man bët bu set damay gis faatu I see Kumba every day damay gis Kumba I know her mooy xam naa ko wala nga ne I know Kumba xam naa ko kon loolu moo tax ma ne la xë dafa jara leeral fii ci boo gisee xë door bu ëllëgee nga gisaat knows her wala see her wala want to talk to her nga bañ leen a jaawale ok yesterday démb de Mrs hmm, Jara Mrs Jara lu mu def moom de opened gis nga foofu daa mel ni killed kill to kill la waaye past bi moo tax mu nekk killed opened bu fekkente ne verbe lañu ñu si jublu bu boobaa past bi open te lay nekk ndax dafa bokk ci regular verb yi nga xam ne seeni mbir yomb ne lijjanti mooy past bi ak past passé bi yëpp id rek lañ ci dolli waaye jëmmi baat bi du soppeeku mu wuuteeg irregular bi maanaam ñoom regular verb lañu ok she looked afraid ba léegi gisaat nañu beneen baat bu ànd ak id muy looked look mooy xool dafa wuute nag ak si maanaam you can look at something but maybe you can't see it mën ngaa di xool mbir te mën naa am sax de doo ko gis look mooy xool see nag mooy gis I saw mooy gisoon naa I see mooy gis naa ba léegi walla damay gis bu dee da ko bëgg a tekk ci wolof mu tolloog baat boobu I see moo du everyday damay gis moo du saa su nekk waaye loolu boo si concentré dinañ jëfe lool pour nga mën a comprendre li anglophone di wax wala nga mën a wax anglais déedéet jàppal ne ay si mooy gis naa rek wolof moom mooy jëfandikoo ni gis naa ci past bi bul jàpp ne anglais saa ne ay si rek ci présent nga ko war a jëfandikoo déedéet I see yeah I see look at me ah thank you I see wala I saw damay bañ nga concentré ci temps bi nag i eh, past la xaaral ma def saw wala xaaral ma wax saw présent la xaaral ma wax see continuous la xaaral mu wax seeing foofu ngay xamee ne maanaam am na yu bëri duñ jarul nga si jéem a concentré waxal rek lu tollook li nga bëgg a wax bàyyi leen ñu comprendre ñu itam ni ñu mënee comme ni ñu koy defee ak yow ci bu fekkente ne ñoom ñooy wax ak yow ok looked mooy past te look maanaam xooloon na she looked nag bu ñu ko waxee she looked fii du nekk moom moo xool ragal maanaam jëmmam moo ragal moom dafa mel ni ku ragal boo koy xool day mel ni ku ragal bu ma ne you look nice mooy danga mel ni ku rafet waxuma la you are nice de déedéet waxuma la you are good de déedéet waxuma baax de dama ne you look nice mooy dafa mel ni ku rafet nga waaw this jacket it looks beautiful wala it looks new bu ma ne this it looks new mooy jacket bi day mel ni lu bees boo ko xoolee daa mel ni lu bees wóorul mel ne lu bees la de mais bu fekkee même dañ koo defaraat sax wala muy kër goo xam ne dañ koo peintir ma ne yii that house it looks beautiful kër gi la de moo ngi mel ni lu rafet mën naa am dañ ko peintir sax te fekk dafa màggat maanaam dafa nekk loo xam ne lu yàgg la. kon bat mu ñu bàyyi xel bu baax mooy she looked afraid mooy daam meloon ni ku tiit léegi ñu xool nag lan moo waral mu tiit ak action bi li ñu ci jublu léegi da ngay xool ci photo yi dina ko wax sax ci bii bi muy lan. Look at the picture story and the words in each picture xoolal ci photo yi nga xam ne moo lay wan action yi passé ak baat bu nekk maanaam photo bu nekk baat ba nekk ci ronam baat bu nekk ci ron nag loolu moo tax gën a jóg leçon bi moom laa doon junj ne nan la ñuy waxee maa ngi bàyyeekoo fii jaar fii dem fële ba ma demee rey jaan ji jaaraat fii jaaraat fii départ ba agsiyaat ci kër gi léegi ñu xool bul wax ne nag dañoo jëfandikoo fii present la ñu waroon a def wala paste wala future déedéet mu ngi mel ni kuy nettali rek naan ii ba ma demee gore nag dugg ci bun dugg ci néeg bi wala ubbi néeg bi gis nga euh, jaar ci kaw jaar ci suuf jaar ci ndox mi loolu noonu boo koy nettali doo jëfandikoo góor a ko def wala jigéen a ko def wala mag a ko def wala xalee ko def wala nit moo ko def wala leneen moo ko def déedéet da ngay waxee ci noo xam ne général yi la ñëpp a ko bokk nga xam ne du am benn changement loolu moo tax fii boo xoolee ci photo bi jiitu ñuy jàngat ko mooy open the door est-ce que foofu gis nga fa he wala she luy tegtale ne dañoo war a wax open déedéet gisoo fa ay dañoo war a wax open kese gisoo fa wii gisoo fa you gisoo fa day yaakaar naa di nga comprendre bu baax li mu wax kon loolu dañ ko jëfandikoo ci anamu général yi ñëpp a ko bokk. mu ngi mel ni open the door ubbi bunt bi waxoo kan moo ubbi di waxoo ubbil bunt bi waxoo da nga ne ubbi bunt bi open the door ubbi bunt bi lu ci toppaat work along the road dox jëm ca yoon ba maanaam dox rek jubal yoon ba over the bridge àgg ca pont ba gis nga dox ba àgg ci pont ba anam boobu loolu mooy over the bridge Rue de mooy romb travers li nga xam ne mooy ñax mi Grâce yaakaar naa yaa ngi fàttaliku wala boo ko fàttaliku ci leçon yi jiitu woon fi élèves yi toogee woon ci ñax mi di jàng muy students sit on wala sit down on the grass through the grass mooy travers li nga xam ne mooy ñax mi to the tree to mooy jëm ci garab ga gis nga foofu kon jëm ci dañuy wax to the fekkee traverse la ñu bëgg a wax dañuy wax through to the tree jëm ca garab ga kill the snake rey jaan ji loolu mooy action bu njëkk bi mu def wala action yu njëkk yi mu def mooy lan open the door bi bunt bi walk along the road dox ci yoon ba over the bridge dem ba sa pont ba waaye through the grass traverse li nga xam ne mooy ñax mi mooy romb ko to the tree jëm ca garab ga waaye kill the snake rey jaan ji ñu xool nag beneen action bi ci toppaat wala yeneen yi ci toppaat ba mu rey jaan mu def work from the tree dox bàyyeekool ca garab ga from the tree gis nga through the grass jaaraat ci ñax mi over the bridge demaat ba ci pont ba waaye along the road ba léegi ci yoon ba jubal ci yoon ba waaye close the door te bunt bi foofu nag baat yi ñu jëfandikoo loolu la bëgg nga bàyyi xel bu baax mooy ci régulable bi nga xam ne noonu ni ma la ko jinjee woon ci commencement bi na la neex nañoo lijjanti wala seeni mbir compliqué wul ndax idée rek lañ ci dolli te action yi yëpp amul benn irrégular verb yëpp boo xoolee regular verb la maanaam verbe yi ci ñëw lu demee ni open muy ubbi opened la ñuy wax muy past bi ubbi woon walk mooy dox walked la ñuy wax muy past bi muy doxoon niki noonu kill muy rey killed la ñuy wax ci past bi comme ni ñu ko gisee woon ci titre bi nga xamante ni mooy mooy wala ci titre bi ci leçon bi ci commencement bi baat bi ñu njëkk a am muy she killed the snake ak close muy tëj closed muy tëjoon ba léegi ok loolu mooy action yi nga xam ni xew na ci li ñu soxla ñuy jàng ko pour xam ko comprendre baat yi nii wala verbe yi nii léegi ñu wàcc si number three bi muy look at the picture xoolal ci photo yi boo xoolee nga bàyyi xel ba léegi liñ ciy wax léegi Mrs Diarra lan lay def foofu liñ fi soxla mooy cook cook mooy togg past bi mooy cooked mooy toggoon loolu tamit regular verb la fii nii Miss Diallo lu muy def water maanaam water he is watering the garden wala watering mooy moo ngi arrosé moo ngi sotti ndox baatu baatu to water something past bi mooy nekk watered watered bu ñu demee ci even lu muy def mooy dafay clean to clean mooy fabere past bi mooy cleaned gars lu muy def washed washed mooy raxas comme ni ñu ko gisee ci station yi past bi mooy washed bii With your partner ask and answer like this then change over ànd si sa partenaire bi laaj ak tontu comme nii bu fekkee moo laaj boo tontoo bu paree nga laaj moom mu jéem a tontu comme nga ne ko what did guy do yesterday guy moom démb lan la defoon démb moom mu ne la he washed the car mooy raxasoon na oto bi ok raxasoon na oto bi bokkul la mu koy raxas wala day raxas oto kon boo boo ko laajoon wala moom bu la laajoon na la what did Mrs Diarra do yesterday loo koy tontu bindal ma ko ci commentaire yi what did Mr Diallo do yesterday loo koy tontu bindal ma ko ci commentaire yi what did Yvonne do yesterday loo koy tontu bindal ma ko ci commentaire yi nga jëfandikoo verbe mu nekk regular verb past bi muy jël d ok loolu mooy leçon bi ñu amoon muy ñaareel bi aji woon si chapter bi nga xam ne mooy sixteen nekk bi nga xam ne moo si mujj si Go For English system bi ngeen àndoon ci ak Mister Ba ci seen YouTube bi di English Boxing Wolof thank you so much bye.